Baraham Sidi Barahama Ñas Sidi Baraham Sidi Baraham gëm leen ne kii ay meram du fo ñu waxaat jërëjëfate Baye Ñas ñu waxaat jërëjëfate Baye Ñas ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di këram Mawlana Cheikh Rahim Ñas ndax bis bi bis la ci bis yàlla yi teraanga nag mënul weesu jëf ji gërëm nañ mboolem ku bàyyi itteem ñëw toog ci jotaay bi ndax àndoo lii rek mooy kàndoo àndoo ci yàlla yombul waxante dëgg la teg ci muñ la waxante dëgg nag jëf la ak wax encouragé nit ci baax yombul nga teew teewlu lu da ngay encouragé nit ci baax dinañ nuyu nag Baye Doudou Thiaré nuyu Baye Moussa Diagne ñu koy nuyu bu baax di ko ziyaara di la woon ne chaque ziyaara moom ak ñun ba mu jeex ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàlla taxawu ko yàlla yàlla sàmm ko ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm Baye Demba laay wax ndax ma su ma waxee sax mën naa di lim waaye naa ne bàyyi dem ba maa koy gërëm ndax dafa bëggoon teew ma ne ko boo teewoon mu ëpp mu yabal fi mbokku taalibe yi yëpp jiital ci mu xaddamam yu baax yii ku mel ni Baye Doudou Thiaré Baye Medoune ak mboolem ku ne ci jotaay bi rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal yàlla yàlla yàlla may la tawféex yàlla yàlla may ñu fekke ko déwén. Baye Thiam mu ngi fii jóge ba kees ànd ak oustaz topp Baye itam yëpp ñëw toog fii di gërëm suma sama papa maa koy gërëm bu baax ak sama nijaay di ci teg suma yaay maa ngi koy gërëm ndax bu baax la ndax ñaan yi may ñaanal maa ngi koy gis waaw ah, ah, kon gërëm suma yaay bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla taxaw ko yàlla yàlla sàmm ko yàlla na yàlla may ko wér bëgg naa ngeen ñaanal ko yàlla mu wér bu baax la doom ju baax ndey ju baax ko bu baaxee boo ko ju baaxul yaakaar naa meññeef bu génnee du am pepp jigéen da nga war a baax boo baax rek am doom ju baax ñu koy gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla may ñu fekkee ak talku di gërëm suma nijaay di gërëm ki doon def conférence bi muy bàyyi kasama oustaz Mamour yow suma xarit nga yàlla ñu boole ndax lii yombul ci ay jotaay di gërëm da baax ndax yéex naa sax dugg ndax dama bëggoon jullee timis ci tànk ma ñëw toog ñu tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabalee tabalee di sàbbal seen borom di tudd ay tur yàlla yu tumuranke yoo xam ne rooxu bu ko déggee fal force mu yëngatu galañ bi di sàbbal bu ne yàqa yu yàqa yu lii dund di dundal moo tax li ko takkee dafa taxawee lu dund la wala lu dee la batt bu dee la der bu dee la ay batt yu dee lañ koy tëggee muy dundal bay dundal rooxu kon loolu nit rek la ko yàlla may ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu yi dañ ko tatagal rëkkal ko ay junjum nabi sant leen gërëm nag mooy tegtal baatin kon ñu ngi gërëm ci loolu yàlla yàlla def ñëpp dégg la yàlla na ko yàlla ko wax suma xarit nag xaritu bopp koo xam ne buy sikkar da yëg ne xam ne kii jaamu yàlla la ko def muy ko baax mu doon koo xam ne dafa woy génne single ngir man te nee naa ko adduna bi dañ la dégg te maa ngi lay giñal ci yàlla adduna bi dañ la dégg li ci kanam nag rawul bët di gërëm Moustapha Kayre mu lay gërëm bu baax di la sant di la wan ne kontaan nañ bu baax ndax att bi rek teewaay nee nañ la ñaar ñiy xeex nga tufli kenn ki rek sot la sa xarit buy xeex mënoo doole mënoo def dara nga tufli kenn ki rek sot la te wax dëgg yàlla sot nga ndax diine bi islaam la tarixa yi pour mun na jubal ñi ci islaam la tarixa yi nag bu ñu yóbbee ci féewaloo rek jàppale nekkatul tarixa ñun ñoo indi suñu mbiru bopp di gërëm Baye Pape Fall jóge ba yëmbal bàyyi itteem yëpp ñëw toog fii ak ñun ci jotaay bii ñu koy gërëm Abdoulahat gis naa ni ko taxawee gis naa ni nga taxawee gis naa li nga baax ngir ñëw teew ak ñun jotaay bi tey walla suba mooy màggal turandoo màggal boo xam ne turandoom la màggal muy Abdoulahat bu mag ma mooy ku ñàkk caaxaan koo xam ne bu waxee rek ñëpp xam ne wax na lépp lu muy wax ci alquran ak ci sunna lay wax buy wax day tàqale danaan wax ji waxi Serigne Touba la wax ji nag waxi yonent bi la waaye wax ji sama waxi bopp la kii waxee noonu mu leer na la mu ngi tàqale benn bu nekk mu teg ko place am suba la ñuy defal màggal boo xam ne moom lañ koy defal te moom mu am cër bu rëy moom lu ko teree dem démb la ak tey moo ko teree dem yàlla yàlla taxaw la yàlla yàlla sàmm la ci barke yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xadra saara jaxaay nag maa ngi nuyu bu baax baabul xadra muy Baye Bari maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla taxawu ko su ma ko ñaanalee nag ñaanal naa xadra bi yëpp man damaa am sens sens ba comme sens la ci bépp mbir nag xam nga wolof jaaree woykat dana wax am sens moo gën am licence saa su ne daf ma tàggatal ay xale yoo xam ne yu baax ay taalibe yu baax la ma yàlla tàggatal yoo xam ne dañoo baax man ay taalibe yu baax la yu bëgg lu baax jublu ci baax yaru ak teggi ndax démb boo xoolee niñ organisé mbir mi nga war a xam ne ñii ñu baax nañ duñ onk duñ yokkat te lu leen sant te man damaa nekk koo xam ne ku doy war gis nga li tax nit ki di nekk ak nit ñi sax ma newuma ci loolu xam nga dañoo xam soo su ma la woowee ñaari yoon jotuma la dootuma la oowati su ma xewlee damaa war a ñëw nga may seet si ma lay seet si xam nga loolu mooy losi nit ak ak moom da nga su ma ànd ak war a seet ma seeti la su ma la war a jot su ma xewlee da war a teew boo teewul nekk ko sama man logique boobu la ma yàlla boolewul ma nekk mu ci loolu te nit ñi dañoo baax baax boo xam ne ma topp ñu ma si sama ay boobu waaye dañoo ñëw ànd ak man te yàlla rek a tax te nangul ma ci ne ma yàlla mel loolu loolu nag yombul xam nga lu war a loolu da ngaa suñu borom nga jël sa temps yëpp jox ko yàlla moo waral nit ñi fal force sax seen xol day ubbeeku nga yàlla moo waxee boo bàyyi lépp nga jox ma sa bopp ma jël lépp jox la ko teg ko sa loxo moo tax boo ragalee yàlla yàlla xamal la yàlla nag dañ ci kumpa bépp mbir la moo tax boo ragalee yàlla domaine boo dugg boo ci waxee ñu ne kii kat fu mu jàngee ragal yàlla mu la yóbbee di gërëm waa 12B imaam bi ñëpp def nañ délégation ñëw fii ñu ne dañuy ziare seen doom dëgg la ziara yaakaar rek la ndax bàyyi moom wax na ko sànq ku yaakaaree ba ziara ngir yàlla koo xam ne jubluwaayam du loolu sax waaye ziyaara boobu yàlla dëggal na ko ba njortam baax kon ziyaara daal mooy ndolal la ziyaara mooy ziyaara di bàyyi ndiba bi jóge ba Kaolack di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla taxu ko yàlla yàlla sàmm ko di nuyu su ma bëggee lim seen tur dinay bëri waaye su ma waxee cuisine rek bàyyi am rek labal naa ci ñëpp ñëpp suba ba léegi ñu ngi def ay délégation di ñëw depuis suba ba léegi dem nañ ba wax ñoom seen bopp jël nañ engagement ci làmminu Maguette soxna Maguette mu sëñ Abdou Karim mu ne déwén ñoom ñooy yor waañ bi ndax añ nu naajee tey taalibe mënuñu dem def ko waa ñëw di togg añ waaye déwén ci boppam ñoom ñooy yor wàllu waañ bi kon ñu engagé wu dara warul lu ko lu mbaax man li ma àndeek ñoom nag àndeewu ñoom ngir dara waaye diine islam laa àndeek islaam ku ko xam da nga xam ne lu yaatu la Baye Niass demoon màkk ba ñëw day toog ci péncam bi woo Baye Fall ñu tudd yàlla ñu tuddee yàlla woo aada yi ñu rëkk seen tabala tudd yàlla woo kenn ku nekk kër kër diine yëpp kenn ku nekk nga ñëw teew tudd yàlla ni ngay tuddee yàlla tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ni ko façon bi koy tagge boo paree mu teral la jox la xaalis gërëm waxtaan bu paree mu waxtaan ñaaxal ñaax leen bàyyi loolu lañ def kon képp kuy taalibeem képp kuy yow doom nga wax waxi dof royoo ci loolu ku roy Baye Niass war a fédéré ndax Baye Niass di ndimbal la sunu borom la dafa ñëw pour dimbali diine Baye Niass xam mission loolu la dafa ñëw pour dimbali diine yëkkati daraatu drapeau islam Baye ñëwul pour diviser Baye ñëwul pour diviser pour régner dafa ñëw pour taxawal diine islam lu nëbboon mu mu wone ko lu sori woon mu jege ko damaa ñëw pour doon koo xam ne damay jàng damm damm yan damm damm damm damm yoo xam ne xol yi dañoo jengoon uti leneen lu dul yàlla te yonent ku ko bëgg rek bu yàggee nga bëgg mbaax. yonent bi ku ko bëgg rek bu yàggee nga bëgg mu baax ndax kooku jëmmi leer la boo bañee tàng bul génn ci naaj bi jant bu tàngee nga ne du mu bëgguma tàng boo ci génnee bu yàggee nga tàng bu yow yaa tàng waaye tàngoor moo la wàll ba nga tàng xam ndox du lakk waaye heure bu jegee taal bu yàggee mu wàll ko jikkoom yonent yi noonu la mel nag xàmmee te bañ a dugg ci yenn détails yi jotaay bi dafa neex dafa ala me xam lu tax ala daw mooy xaadar bi ñëw na tagg yonent bi ci façon te ñooñu ay borom isnu lañu murit bi ñëw na tagg yonent bi ci façon sama mbokku tijaan yi ñëw nañ jaawoon tagg yonent bi ci façon mu des nag ñun ndax ëwël bi moom dañ koy jéggale tey bu ñu paree ñun da ngeen ñu muñ ngeen bàyyi man gëm naa ne allah baay bii may def dinaa ko def ba def ko biir màkk gëm-gëm laa dinaa foto sama bopp di yëngul Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ci xabru yuntu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dinaa filmer sama bopp comme nit ñi ni ñuy demee di jooy di yërëmtal di fóon kaaba gi man du ma def loolu dangay bi moo mu ko def te man du ma wax loo xam ne lu mu dul def may wax day fekk ne wan nañ ma ko ba pare ma doo ko ñeme wax su ma xarit bu may wax Sorano dama ne day fees léegi naa ko mu def ba déwén dinañ ko fekkee te tal sa déeru mooy gën a ëpp doole déwén dinañu tegal écran ci biti ci kàttan ak suñu borom xaar ba déwén xam nga olof jaay def ne werante ëpp ku rek kuy jaay wilaaya moom kuy jaay wilaaya bul wax jour buy ñëw de boo ko waxee jour fen loola kuy weddi laajal Koungandé. Koungandé bu ñu jàppee jour yow mu asura gars yi wax jëm kaw jëm suum ne yow mu asura waaye yow mu asura bu mu ñëwee du def policier ñoo ko aaye fa yàqoo ba tey moo tax fen bu ko jàppal jour moo su may wax nit dama lay jàppal ñu ngi ñëw xam nga déwén laaw ma déwén nañu yàggatul de dafa mel ni suba rek la dana neex danga dem ba nit ñi dootuñu la ñeent sa si xarit bi nga am bu mel ni bayaam te maa ngi koy def ngir bàññis ci yàllaa moo boole moom ma bëgg ko yàlla rek a tax man suma alal kenn rek moo ci war a kaas muy sama sëriñ sama teraanga kenn rek moo ci war a am war naa am muy sama sëriñ kenn ku ci lii jàppale loo ci am wërsëg la du force man li ma gëm laa du force teraanga yi nag boo ko jotee ba jot ca boo ci amee soow bu weex naanal te sant yàlla te xam ne kat yàlla baay bi moom moo koy xëccoog nit ñi léegi bi moom moo koy xëccoog loolu loolu da sant yàlla yow li nga doon def ba sa baay ñëw nangul la te loolu yombul dama ko waxoon keroog gars yi reetaan ma man li may dund dama war a sant yàlla sama papa daf maa nangul li may dund suma yaay daf maa nangul nangu te kan moom moo mën a wonante rek sama papa nangul na ma sama sëriñ nangul na ma keneen kuy bañ bañ da ngaa wérul rek da ngaa wérul rek ma sama papa nangul na ma sama baay nangul na ma te ñooñu bu ñu nangoon problème may bëri rek waaye dama bëri waaye loolu tawféex la dafa am loo xam ne yàlla bu ko defee ci jamono bëriwul lu mu koy def ci jamono foo xam ne lépp lépp du ma catu sama bopp sama ndax mënu ma catu sama bopp yal na yàlla dimbali ñu yal yàlla taxawu ñu yàlla sàmm ñu maa ngi gërëm ñëpp Ababacar ñëpp laa gërëm Babacar Diouf gërëm ñëpp laa wax mbokku taalibe yu baax la ma yàlla boole yu baax yoo xam ne dañ maa bëgg ba amul ci man sabu te man tamit noonu laa leen bëggee man aw xarit aw àndandoo aw fu may fréquenté aw fenn loolu samay mbokku taalibe lu ma naqari ñoom laay waxal lu ma neex ñoom laay waxal mbooloo bi ñu def démb jaxaay juróomi kaar wax bokkul oto yu ndaw yi même mu le maire dafa yónnee rakkam pour mu ñëw mbooleem ku fi ne ci dëkk bi te ñun yëglewuñ ko nekk nekkati programme lu muy fees fees dafa dese dafa dese siiw ne nañ am na ñoo xam ne yëguñu ko dëkkandoo yi ne nañ yëguñu woon oto dañ ciy jëlee oto di dem xam nga loolu dafa doy waar kon déwén lay gën a doy waar ñu ngi gërëm ñëpp yal yàlla taxaw leen yal na yàlla sàmm leen ci barki yontu yàlla Muhammad ñu ngi yeewi nag ñi dund fayda rëwal bi mun nañ yeewee ko après ñun ñoo ci des ñu def balaa bàyyi yal na yàlla taxaw ñu yal yàlla sàmm ñu yal yàlla may ñu fekkee déwén taal ko alal danañ ko bëri le billaahi wallaahi taalaahi barki bàyyi bàyyi nga sama yàqamti jarut alal bi même boo amul wërsëg yàlla natul si yow wërsëg man dinaa am teral la ko doo te man deewuma léegi léegi de lu wokkul nguur yi wokkuwul ma nguur yi nguur yi lu ko wokkul man wokkul ma maa ngi fii ba ci kanam te yàlla dexal na ma ko am na yoo xam ne ñëwee ko wax su ma ko waxee dañu naan waa ji day ñotti maqaama léegi ay daraja lay moom moo ay maqaama lay metti xam na bis nit toog na ma toog waa ji yoot ma ba fekk ma ginnaaw ma toog xam nga paaka lawbe yooyu lawbe ñuy xoose bant yi nu muy ñawee waa ji fekk ma toog ci ginnaaw pono yi mu yoot ma ba jekku ma sama colonne vertébrale mu jam ma paak paaka bi dam sama papa ñëw naa ma da ngaa nit tiim na ma fetel tiré bal bi bal bi romb marché Caaroy bii maketu Caaroy nit tiim na ma fetalu tëgg dóor tàkkul mu dóoraat ci kaw mu tàkk nit yor dama ak jaasi jaasi ma taxaw waa ji li ma yor pour dóor ma gis nga bu ma sëggee dama sëgg mu dal ci buntu bi dafa xar buntu bi kon xam ne mucc naa ci dee yooyu ma toogoo Serigne Baye Soumane Baye Soumane ne ma est-ce que xam nga bis bu loolu tere woon dee est-ce xam nga bis sangam bi nga ànd ak nangam ak nangam ngay ubbi ngeen ubbi ba yëkkati porte bi bal bi la romb xam nga ma ko fil ma ne la xamal wax loolu ne ko mu yow da ngaa am mission ci diine islam. mu ne lu la rawalee foofu bàyyi nga mu ne say cër du léegi lay feeñ dañ la bàyyi si kanam. Mhm. du sant yàlla. tey bu ma ñëwee dina ko wax dama bëgg nga ñaanal ma bañ a rikkeeku bañ a bew mu ne yooyu la dal <laughs> doo rikkeeku doo bew mu ne bew lii bewal nit ki moo nekkul sa xol te effectivement dëgg la. ma damay bëgg sax tiitur waaye mënu ma ko. <laughs> démb bu may dox papi moo ñëw fekk ma ne ma <laughs> bëgg sax dama koy bëgg waaye mënu ma ko. du ma def lu mu gëmul du ma wax lu ma gëmul ku ma jàpp jàpp naa la ku ma bàyyi bàyyi naa la ku yaakaar ne yow yaay doxal samay mbir dama toog sa kër tuuti rek nga comprendre yow ndeke def doxaloo dara tuuti nga xam ne yow ndekete doxaloo dara ndekete waa ji luy doxal ay mbiram du yow suñu ziara bi tey nag yàlla def na ci barke bay nu bi ziara bu am barke la daay jullit yu bokk benn pas-pas ñoo daje yu bokk benn tarixa ñoo daje ñu wuute ay tarixa ñoo fi daj kenn ku nekk di ñaanal te nit loo garaaw garaaw garaaw alma sa làmmiñ moom mooy yàlla am na ñaata làmmiñ ñoo fi ñaan dañ koo ba toog sa buntu gën nga xool nga xool bàyyi am def moo tax sànq ci biir waxtaan dama ne bàyyi am kenn bañu wax jee bëri rek billaahi wallaahi taalaahi bàyyi am kenn bañu xam nga lu bu dee jigéen nga buñ la yeewoon xaaju guddi ne la suba da ngay am jëkkër ju mel ni bayaar bu doon 3 heures de sa nelaw jeex bu doon paa nga ñu yee la ne la suba danga am doom ju mel ni bayaam sa nelaw jeex bu dee mag bëgg mel ni bayaam buñ jeex na xarit sax bëgg nga xarit bu mel ni bayaam ñëpp nga xaritoo moom kon lu ne bëgg nga am bu mel ni bayaam kon ndekete boo taxawee fële ne bàyyi am bu bon te buñ la waxoon ñu may la ko nga jël bañu ko ñaaram fiir wala ñàkk xam na te fiir la yàlla bindee ak doomi aadama ndax loolu moo génnee xawaa ca aadama ca ajana loolu la yàlla bindee doomi aadama walu yàlla il faut ñuy fiirante fiirante boobu nag mooy yéegal maqaama yi waaye yow mi ñuy fiiri nag yaay comprendre xam fi nga jëm problème bi loolu rek la yére bu rafet ku ko bañ kenn xanaa ku tàqale woon saxoon yére bu rafet kenn bañu ko lekk bu neex ku boo ko bañee da ngaa feebar xam nga boo taxee daal suukar neexul da ngaa jabet rek dafay neex na yàpp neexul da fekk ko rek nga am tension waaye yàpp neex na sikar moom neexul dafa fekk ne sa noppi ñoo problème rek waaye sikar neex lenn lu nekk dafa am waaye lu muy neex ne am ñu ngi ko aaye am na ñoo xam ne bàyyi am mu ñëw jege bàyyi am na yàlla bindu ñu ci ñu jege bàyyi am ku ko jege nag da ngay ñaan yàlla ah, kii jege bàyyi am yàlla yàlla musal leen seytaane bis dina jot yàlla yombal la ñaan bi ko ñaan mu de egg ci yow doon sama xarit yombul doon sama xarit damay bëgg nga am ndam kii man dama bëgg mu am ndam bu amee ndam ma am ndam oustaz Mamour dama bëgg mu am ndam ñii samay sëriñ lañ yàlla yàlla taxaw leen yàlla yàlla sàmm leen ñun taalibe dañ góorgóorlu ci sëriñ si gis nga faylu du phénomène da toog sa buntu kër rek yaakaar ne non sëriñ bi dina war a doxee yow sëriñ bi lu muy doxee la so yow yow kay ni nga war a doxee lañ la wax non sëriñ bi nii la war a tëralee sëriñ bi ni mu war a alhamdulilah yàlla moo taxawalee la àdduna bi caro mamul maa ngi lay ziar bu baax di la wan ne kontaan nañu bëgg nañ ci mboolem itte yi ñu def ñëw teew fi. yàlla nga yi ñu def ñëw teew koy gërëm di wan ne bëgg nañu di wax sama sama binom ma la ma wax sama oco accompagnant la ñu waxee. Ah? accompagnant accompagnant. su ma àndoon laa bëgg a wax ba pare France laa bëgg compagnon de guerre muy Oustaz Cissé al bayaan bu may yab yab lu ci ay xaala xiila boo ñëwee Oustaz rek laa lay boole <laughs> moom ku ma ci yab boo ñëwee du ma la wax dara de <laughs> Oustaz laa ci néeg rek boo génnee taalibe ngay doon. <laughs> Eh. ku ma ci yab boo ñëwee si Oustaz. Eh. boo ñëwee ci yeneen yeneen yeneen am na koo xam ne dara toog di yàlla bàyyi am amul maarifa bàyyi amul lii bàyyi amul amul lii man ba léegi damay dox séeru bi man bàyyi bi bi dafay doxal séeru ba léegi bàyyi Moussa Diagne daf maa doxal séeru bàyyi Idi Tamba xam nga su ma doon dox séeru ci moom la lay def damay jënd gerte ak biscuit ak ataaya boo yore 2000 moom loo bëgg ci yontu yàlla Moussa moom la koy firil loolu doy war laa ne loolu yonent yàlla Moussa loo ci bëgg mu firil la ko bàyyi idi bàyyi Moussa mii laaj ko daf maa doxal séeru man ñi ma doon doxal séeru damaa demoon ba mu jënd di werante ak ñoom boo fi ko teg dem ba ba tey daf may doxal séeru musuma ñëw di laaj ñu ci séeru di war ne xam naa boo waxee dama naan xaw ma am noo ngay laajee samay dox dox dana la ah dama bëgg xam sa dégg mu leen dimbali yàlla yàlla dimbali yàlla yàlla taxaw yàlla yàlla sàmm ñu waajal allah bàyyi bàyyi ngoom nag dama bëgg nga sikar ah noonu maa la jaan da ngaa sonn sikar tey ko wala xam moo tax may tëgg bi ma amul dara bi ma amul dara ñu naan dof la dañuy caaxaan ma ne ci man li may jiital xale yi man maa ci jiitu bu dee tëgg maa ci bu dee pecc maa ci tey Ahmed Bari dafa def loo xam ne maa a sonn ma ne lii de ci man la ko royee moo tax booy def ci kanamam defal jàmm taali booy def ci kanam defal jàmm da yëngu rek périe périe rulaat ma ah, bii de ci mën na ko jànge bii de moo bii xam bu mokkul waaye bii mokku la waaye man nag maa ko gën a aaye man moom maa gën a aaye man moom damay dem delluwaat dëpp waaye moom dafa dem am na nu mu demee sa course bu long man eh, ay ndimbal la na ne daal seen doom a ngi seen xarit a ngi nii ku leen maa ngi gërëm Abdou Salam Abdou Salam maa ngi koy gërëm bu baax maa ngi gërëm Abdou Salam mi jóge ba te li ci kanam rawagul bët yow Abdou Salam lépp da nga ko gis nekk rek yor sa kuur su garaaw garaaw taal sa lampe mu leer maa ngi leen di laabee biir maa ngi leen di laabee biir samay mbokk maa ngi leen laabee biir képp ku may jëw na nga ñëw ba sama kër sama kanam nga wax ma ko nga am ci jàmm billahi wallahi taalahi barke bàyyi si ku wax ci man lu ñaaw dana këpp sa kaw ku xeeñaane da dellu ginnaaw dëgg xam nga bi ma waxee si gàmmu gi damaa wax damaa gént yéen bi la ne ma gàmmu gaa ngi ne gént bi waxum eh, eh, net lu ma lépp de dama am lu ma bàyyi man man ku xool war a xam ne am na mbir ci man man dama am mbir maa ngi leen di ñaan nag képp kuy wax ci Baye am lu ñaaw loo xam ne mënoo ko ñëwul ba ci man wax ko ma dégg ko baal waaye boo demee nëbbatu wax ma lu ñaaw billahi wallahi taala yaay gën a nasax sa mbooloo bi yaay gën a dellu ginnaaw ñi nga àndal yaay gën a torox ñi nga àndal ñëpp dinañ avancé même café boo koy jënd da ngay ñaan 100 francs ñu may billahi wallahi taala da nga bëgg a dem su ma nekkoon caaxaankat fii si kër gi fekk kon naa fi mbir nag xam nga la mooy dëgg bi ñu bañoon ñëw ba nangu mooy dëgg tey ñaata imaam ñoo fi toog tey am na ñoo dañoon dira daan nekku ci dëkk tey ñoo ñoon toog fii di di seede mbir nag ku ko doon dingat bu demee ba nekk ci dëkk ba ñëw di seede dëgg boobu xamal leen dëgg dëgg nga def kon nag góor-góor suñu mbokk taalibe dañ bëggante waaw góor gi bàyyi wu ma noonu góor gi boo ñëwee ci moom naan ko am léegi dara su yàqoo maa yàqule sànq sama papa lay yëngu bës kanam def ni làmmiñ bi def ne nii kenn mënu ci moom dara mooy làmmiñ ak bët mënu ci moom dara damaa ree rek noonu man loolu mënul ci ma tus su ma sibboon damaa tawat su ma tawatee damaa sibboon wala ma sonn wala ma ñàkk nelaw man sama tawat ñàkk nelaw ni bay am moo gën nga toog sa buntu kër yàqal sëkkal sa karaw yore kurus tuuti tàng laay la wir laay laay la rek naan waa ji noonu noo wul ni ni la war a doxee da la war a doxee te nu mu war a doxee dafa dox ba nga egg ci ñaari ni topp ñu la yow sax amoo ziar nga bëgg a yàq yow am ziar lu bay wax te liggéey ñu publicité bi nag bëgg naa yéen waa Jaxaay parce que waa Jaxaay dama bëgg samedi ñëpp teel dem ñu fekkee gàmmu jëli sëriñam bàyyi suma man bu yàlla dogalee vendredi laay dem mbokk taalibe bu ñu amee sañte nañ dem vendredi ñu bëri ñu dem vendredi ñu wane mbir mi sunu mbir la ndax 11 mai mooy gàmmu Baye Demba dafa tombé nag nii yow moom dinañ yabal soxla yi ndax soxla yi rek ngay tuddee programme dañ lay yabal soxla yi ñëwal. mbokku taalibe ñëpp képp ku bëgg a dem bu dee mën na ay man ngaa wut dama bëgg nit bu la teewul da koy teewul bàyyi dem ba jaxaay vendredi la ñëw fanaan ba samedi ba dimanche mu war dem Fuuta. fii la jaxaay may ñu xadra juma nit nag doo du la gën a gore. bu ko neexoon ne Ndiaye mooy moom la Baye Ousmane jiital ci Ndakaaru waaye dafa ñëw ànd ak ñun ba gàmm gi jeex te mosoo dégg mu wax wax joo xam ne wax ñuy blessé doomu yaakaar kon waa Jaxaay am leen góor ak kóllëre waajal gàmmam gi 11 mai oustaz bi moom invité naa la xaw ma foo nag. bu waaw bu ñëw. waaye bëgg naa invité ñëpp gàmmu Baye Mbuub ba Baye Dem 11 mai cuisine bi maa ngi invité bëgg naa ngeen def délégation bu mag ngeen ñëw sagal ko ndax Baye Dem ba nit ku baax ku ci def dërëmum nag tey ba déwén macha allahu taala li tax ñu bég mooy ñaare heure bu ñu tàntee fii tant bi ñuy tant tey dina gàcceel tant biñ tant démb ci lépp nag ci lépp njaboot yi bàyyi am am ñuy toog fii bu fi conférence amee ku aaye waxtaan ki ma mujjee fekkee waxtaanam damay jàpp ne moo gën a aay moo dàq wax moo ëpp xam-xam moo ëpp ñaan ki doon def conférence bee passé loolu nag yokkute la loolu yokkute la te nit ku baax sëriñ bu mënta def tasarrufaat ci taalibeem ci njabootam dañ koy jiñ sëriñ waaye matewu kii ñu yàlla booleel nag mën na loolu am naa yaakaar na ñun ñu demoon grand théâtre démb man ak moom ñoo dend lan njaay maag bàyyi ñoo dend waaye mbir yi kenn xamul lu mu waaw kenn xamul lu mu waaw kenn xamul lu mu billaahi wallaahi man ak moom démb grand théâtre ñoo dend toog nañ ba benn instant photographe bi ñu photo indi photo yi sang bi ñu dendaloon doomu Thierno Assane dem bi ma féetee càmmooñ tam am taxawaay nu mu tudd Baye ah Serigne Cheikh Omar Deme waaw Serigne Cheikh Omar Deme moo toog nii sama càmmooñ man ma toog nii Baye am toog nii Serigne Cheikh Omar Deme photographe bi jox ko sept photo sëriñ bi ne ko ñaata la mu ne ko 3500 sëriñ bi ne bàyyi am joxal ma ko 3500 man ma jël ñetti photo n'est-ce pas la war a loolu du 5000 3500 plus 1500 bàyyi am ne bàyyi ma fay ko bàyyi jël loxo bi di ko def ci poos yi di seet xaalis amul lan ñaa lu garaw laa lay billaahi wallaahi ñoo dend laat yow ñaata nit ñoo dox suñu diggante bariwul ah ñaari nit ñoo dox suñu diggante ñoo dend bàyyi jël loxo bi di seet cinq mille yu mu bi amul muy dugal ci loxo bi di seet ma ne ko waa bàyyi man teem a laa dugalal Lat Ndiaye jël naa sama loxo dugal ko ci poosu bàyyi am bii bi fee bi féeteeg man féetewu ko nii nii laa ko féete poos bii dugal naa fa man sama loxo daju ma poosam bii garam bam bii dugal naa ci daju ma bii nag jotuma ciy dugal ndax côté bale la ma féete man samay wax day leer poos bii dugaluma ci ndax côté bee la ma féete mais poos yi dend ak man bi ci kaw ak bi ci suuf dugal naa ci sama loxo daju ma bii dugal naa sama loxo daju ma bi muy baatare bàyyi ngoom xoolaat leen vidéo yi poos yooyu ma dugal sama loxo daju ma ci la doon génnee xaalis te jox bàyyi ma ñoo dend waaw léegi laat loolu kenn xamul lu mu doon loolu kenn xamul bëgg di wax Babacar Babacar yi may xam ak yi may fekkee du ma ko sax di bëgg a wax ndax nit ñi duñu comprendre waaw nit ñi duñu comp ëppale naa loolu billaahi ëppale naa loolu man alaaji Malick mooy sama sëriñ ëppale naa loolu barki Seydina wax lan jaay ki ma jokk ci waawoon ba ma woowoon téléphone maag moom ñuy waxtaan boo déggee suñu kàddu ba ma la nee kii sama sëriñ la da nga naan déedéet du sa sëriñ man ëppale naa loolu waaye daa yéeme ma toog ak Baye am photographe ñëw Baye war koo jox junni Pape Demba Baye am lamb poos bi dajul xaalis mu lamb fii dajul mu lamb dajul muy wër ci poos xaalis amul lu mu ko fayee man maa ngi toog poosam bi mu dendal bii ma dugal gisuma dara ma dugal fii gisuma dara ma dugal fii gisuma dara waaw Baye Ngom toog tàmbali man gisuma fu ñu ko joxee enveloppe gisuma ko ñoo toog ñi ko nuyu nuyu nañ ma ñi ko ziyaar si gaa ziyaaruñ ma waaye gis naa leen. tàllal loxo pour mu ñaanal leen gaa ñaanu ma waaye tàllal naa sama loxo di wax amin waa léegi heure joxe jot bàyyi am jug taxaw di làmb ci poos yooyu ma làmboon gisuma dara di joxe ba mu yàgg mu ñëw toogaat ma jàpp ne waa ji daa jeexal ñu toogaat ba ci kanam mu jógaat yéeg ci kaw pëñam bu fekk bàyyi moom fu mu taxaw jël xaalis bi di ko ko mbéj di ko taf ci lex bi xool leen fi ne wooy waaw ab sëriñ nag da ngay mën tasarufaat jikko yoo xam ne mu'jiza yonent moo koy def waaye karaama sëriñ dina ko def yonent bi alayhi salaatu wa salaam toog na waa Màkka ni ko boo bëggee ñu gëm la jant bi ta ta tàng nii faaw nga indi ko xar ko ñu xam bokkul woon ci mission am waaye yàlla da koo may loolu suqal xamara bi ishaaratihi ci junjam gi ci la xaree ci la xaree weer wi waaw léegi. nit ku baax faaw day mel yooyu bàyyi nag njabootam kii ko yàlla boole ku mu ci tànnoon war laa tàntal suba ne la defal waxtaan bu ñu la ah, gars yi bu ñu nee Babacar mii mooy Babacar Sarr mooy def waxtaan bu ko bàyyi am xoolee validé ko Babacar bu toogee fii ni bàyyi nga sama def noonu lay def loolu mooy mbaax yàlla yàlla defal la jàmm nit ku baax nga. yal na yàlla sagal la yàlla taxawu la papi li mu bëgg ci man du ko def bàyyi duma ko def papi daf ma ne woon damaa bëgg bu bàyyi nga sama waxtaanee pare nga jóg bu ñu la joxee tànt ni ngay def nga waxtaane yonent bi def conférence loolu la papi bëggoon mais du ma ko def kii li mu wax duma ci teg dara waaw kii li wax paan boo ko tegee ci boo ko tegee ci suufu robinet ubbi robinet bi ba paan bi fees dell xër bu la jàppee tax nga naan da ngay ubbi waat defaratoo da ngay yàq te li ñu bëggoon a dégg ci mbaax bàyyi nga sama wax nañu ko ba ñu des mooy ñi yàlla booleeg bàyyi am bu ñuy ut tem nañu ut beneen tem waaye jëmmi mbaax temu mbaax buñ ko waree waxtaane bul defati nii bu fi nekk di xool ay téere ak waaw temu mbaax buñ ko waree waxtaane bu fi nekkati di xool ay téere xam nga nooy def bàyyi bañ doon jox la micro bi nga jug fi nga toog ne bàyyi am kaay bàyyi ñëw nga ne ko bàyyi toogal bàyyi toog nga leen nga ne ko mbaax mi nii ne wasalaamualeykum wa rahmatullah jëru ko wax ci ñaari nit yaa laa ko mës a gis ñaar ma la ñett ma la ñeent Sénégal ñëpp baax nañu bañu ma mbaaxu kenn de mën naa amit bi ma juddoo yàggul moo tax gisuluma ñeneen yi mais lii may bëgg wax ci ñaar laa ko mës a gis kenn ki mooy Serigne Mansour borom daara ji kenn ki ci bàyyi am nii laa ko gisee ñaar Moussa xam nga la ko sëñ Mansour daa toog këram gii Pikine Icotaf la tuug këram googu Pikine toog fa di maye ay bee màkka di maye ay bee màkka ba mu yàgg mu seen benn waaye toog na la ci ginnaaw mu ne ko yow xanaa bëggoo dem màkka kaay dama ko déedéet man sëñ bi chrétien laa de man chrétien laa dama laa sopp rek tax ma ñëw sëñ Mansour ne ko comme chrétien nga garaawul léegi kaay yow dama lay yóbbu Italie bu ko defee nga dom Rome nga dem Rome ziyaar ak pa pa ba fa nekk waaye comme damay maye bee màkka yow faa ma yóbbaale la yóbbu chrétien Italie fii lañ toog mu génnee ay xar di joxe man nag laa waaw man man li li gendarme mu bëgg police yi bëgg ko moom laa am mooy maa fekkee waaw man man situation yi garaaw yi situation yi garaaw yi dama koy fekkee Lat Ndiaye ñu taxaw ñu jël ay xar di séddale mu naan ma oustaz joxal diw ñuy jox jox ba mu yàgg bàyyam ne ma eh c' est daan ne eh sëñ bi kaay jël waa ji ñëw bàyyam ne ko am jëlal xar nga yóbbu waa ji ne ko man chrétien laa bàyyam ne ko garaawul jëlal boo génnee nga dem ca dara ba nga jaay bu doon man la dama ko daan déet sëñ bi yow kat bàyyi ba pak nga ñëw ma jox la ay cereek ay ay ay ay ay ay ak ay ay ay ay lëtëreek yooyu ay suukar nga defar ko waaye jëlal boo génnee xoolal dara bu la neex nga jaay jël xaalis loolu mooy mbaax bàyyi des ma bu sonnati de yow sa thème bii lu ne daj nga ko ci. téere woo téere xool nga ko daa métti buñ la waxtaanalee ci ay fen ak ay jëwa yooyu demal xooli téere yi bu buñ la waxtaanalee ci mbaax bàyyi ba tàbbi du fees dell nga ne mbokk yi salaamaaleykum. jóg ne bàyyi am kaay bàyyi toog ngeen ne leen bu ngeen bëggee gis mbaax jëmmi mbaax a ngi loo roy ci ma baax nit ku baax la yàlla defal na jàmm waaye yal yàlla sagal la yow yow ñun sens la mu am suñu sens la bàyyi suñu sens la démb bi ñu jógee grand théâtre almadi laa demoon ci guddi gi ab kilifa laa fa amoon amaloon rendez-vous mu am ci benn résidence boo xam ne fa la ma entré waaye léeg-léeg boo jaxasoowee kilifa yi ci ngay xam ne bàyyi am paax waaw xam nga daa am loo xam ne yéen ñii nga xam ne ay njabootu bàyyi am ngeen ngeen yem ci bàyyi rek di ko gis di ko dégg yem ci moom mënoo leen a xam lim am nit balaa ngaa xam ne sa bàyyi jàmbaar la nga samp kër sa sa sa jabar di laaj dépasse sa doom di feebar ngay yóbbu hôpital di faj ci ngay xam li sa bàyyi nag balaa ngaa xam ne sa bàyyi ku baax la balaa nga xam ne sa bàyyi ku baax la nga am jabar mu tàmbale laa tooñ léeg-léeg mu tooñ la bëne sipp bis dina jot nga tëdd daal ne man sama yaay mbaar lii la daan def sama papa sama papa mën naa muñ de waaye yéen fii ak yéen a ngi toog fii di gis bàyyi am mu leen gis du ngeen xam sëriñ bi leen la jox mooy kan ku baax la yaa na yàlla defal la jàmm yàlla na yàlla sagal ni ma la téewee dama laa xam moo tax ma téye la billaahi ku la xam téye la la xamul chance la nag ndax yàlla moo yor ay mbiram di ko def dama ne kii bu dëkkoon Tamba wala mu dëkk Mali wala mu dëkk gine te lii ñu xam ñu xam ko ci moom war nañoo war a mën a jaral jóge fii gaare ay kaar di dem Tamba wala Mali wala Guinée di ko fekk bis bu yàlla sàkk nit am benn affaire bu muy wëri wala gis benn sëriñ ci internet bi mu joxee numéro wax ay affaire nga jóge fi dem mbuur wala nga dem jawbe wala fu nekk nga dem fa di kii romb loo xam ne boo ñëwoon fii moo lay defal ñaan sarax ba ngay génnee moo la koy jox ne la génnee ko mbaax kay ci moom la yal na yàlla defal la jàmm bàyyi nit ku baax nga nit ku nite nga yow da ngaa nite da ngaa sérieux yal na yàlla taxaw la maa ngi ñaan yàlla bu sama làmmiñ nekk lor ci yow maa ngi ñaan yàlla bu sama làmmiñ nekk lor ci yow ndax yonent bi nee na al aynu xaqun wa lisaanu xaqun waaye yàlla bu suñu làmmiñ nekk lor ci yow yàlla na yàlla bàyyi la ñun yàlla taxaw la biir yàlla taxaw la biti bàyyi nga bisu démb bi ñu ngi la ci ndokkeel bisu démb bi ñu ngi la ci ndokkeel démb l'islam moo am ndam loolu ndamal l'islam fa bàyyi am ku gis démb ni nga taxawoo bàyyi ngoom loolu la nit njëriñ lañ koy dee lan njaay nit kenn ko lekk kenn du ko naan kenn ko baxal kenn ko fiiriir kenn du ko omelette nit kenn du ko mayonnaise kenn du ko beurre nit njëriñ lañ koy doyee amul leneen amul leneen njëriñ rek la ñuy doyee doomu aadama bàyyi am su ma amoon sama soxla ñëw fii nii muy naq naqul dama ko naan eh àndee wuñ nii de njëriñ nit boo ko tanee koy dimbali daa fekk ne ku nekk ak ndimbalam ak ku nekk ak wërsëgam lan njaay nit tant que wërsëgam nekkul ci sa loxo du lekkul ci loxoom doo ko am mbaa yëg nga ne Lat Ndiaye mbaa am xaalis bii mu jox Pape Demba man la ko gën a yéene ah da ngay laaj da mu jox Pape Demba jox ko Moustapha bi muy way jox ko da baax man la ko gën a yéene billaahi wallaahi lu moo ma ne lu ma yor yéene naa la waaye seen wërsëg la laaj xolal su ma taxawoon fii di wax bay périer loolu du ñëw ci man sama seen wërsëg la ñoom daa am benn xam ne xiif da koo jàpp mar jàpp ko mu dem ci benn teen ne xaaral mu ut lu mu naan ñëw ba ci buntu teen bi jël baagam di yóotu amatul kàttan ngelaw li ëf ko mu daanu ci biir teen bi mu daanoo ndox mi solu ko mu sonn lool sonn lool am ñu jaar ca teen ba di ut ndox daal di sànni baag moom mu daal di baag bi bi mu téewee baag bi ñooñu xëcc baag bi yëg ne lii ñu jàpp nit la ñooñu daal di jàppandoo bi daal di koy xëcc ba mu génn li mu génnee mu ngi gis benn waaye mi ngi yor benn mbuusu soow mbuusu soow bii moo ko dese woon ci àddina moom la doon jël si la wërsëgam la yàllaa ne malakul waa na génn teen bi heure deewam jot na waaye balaa moo dee mbuusu soow boobu wërsëgam la na ko lekk ba pare door a faatu moo tax da koo lekk rek daal di wàcc bi teen wërsëgam la sa wërsëg bu nekkul ci bàyyi am di ko xas di nga ko ŋàññ di nga ne day def ngistal di nga ne def maa daf ma daf ma bàyyi ci biir di nga ne sëriñ bi xanaa xamul ne aw may soxla déet ah kay xam na ko waaye wërsëg ak tous les choses à temps <laughs> tubaab kay maa ko dégg quand sama tëfa tubaab tubaab kay may laa ci am moom je parle quand sama tëfa chaque chose à son temps lu nekk ak jamono bu ko defee yal yàlla defal ñu jàmm yal na yàlla taxawu bisu tey jii bàyyi am da koo waaj. lu raw ni ko mbokk taalibe yi waajee Lat Ndiaye bari na koy wax ci waañ bi xamul ni mu demee bari na koy wax ci waañ bi xamul ni mu demee waaye waañ bi mbir la affaire bu doy waar la gis nga muy gisee daa doy waar gisin bu doy waar am gisin bu doy waar la am am na vision bu sori moo tax léegi bàyyi gas ma bi mu nee taalibe yi mbokk taalibe yi am nañ vision bu sori ma ne alhamdulilahi rabbil alamin loolu moo jaadu loolu loolu jaadu na kii bi ñu ko jàppee bàyyi dafa ma woo téléphone ne ma oustaz ziyaara baa ngi bëgg a ñëw ne ma tey yéen borom xam-xam yi yéene ne nitu yàlla ku ko ziyaara war ngaa yokk ma ne ko waa loolu de dëgg la ne ma oustaz xam nga ne li tax nit ñi biñ may ziyaaree yokk man maa koy liggéey balaa bis ba bu ma waxee wax yu rëy ci téléphone man damay couper téléphone bi daw ñëw waaw moo tax sama jege gisance la waxu yu ngande bu waaye bu ma ko waxee téléphone damay couper def jiñ jiñ lu réseau affaire bi bu dee appel whatsapp la ma woo ndax moom la ëpp lu muy woote ma coupé connexion bi daal di daw ñëw bi ma demee ñëw mu ne ma oustaz waa sa ñëw gii nag na yem tey fii ak ñetti fan yi moom bul ñëw bu ma la soxlaa naa la woo téléphone boo ma nammee woo ma téléphone ñu waxtaan mu ne ma ñetti fan yi ñetti guddi yi bëgguma koo nelaw bëgguma koo gëm bët damaa bëgg a jaamu yàlla am yu ma liggéey ngir nit ñi bu ñu ma siyaaree yokk àdduna ak àllaaxira kon te kilifa boo ko ziyaaree ba pare boo demee semaine ba ngay duggaat war ngaa yëg ak ak tawféex ci sa xol war ngaa yëg ne yow am na loo def loo daawul def waaw léegi loolu nag yéen ñun ni ñu ko waajalee ci ay sañse waajal ko ci programme def ay yëgle ci conférencier bi waajal ko moom ci ay thème bàyyi am noonu la ko waajalee pour ku ko ziyaare bi su tey ji yokk bàyyi maa ngi lay ziyaara ñoo ngi lay ziyaara waat encore une yàlla na yàlla bàyyi laa ñun yal yàlla taxaw la yàlla defal la jàmm yéene bi nga am ci dëkk bi am ko ci askan bi yëpp yàlla yàlla sagal la ko yàlla defal la jàmm bàyyi am njaboot bu baax nga am sa taalibe yi ay nit ñu baax la ay tànneefee la yàlla jox ay tànneef la la yàlla jox ay taalibe yu baax nga am say taalibe ñi ciy góor ñi ciy jigéen mosumaa gis si nit lu ma koy xeebe mosu am te moo ne xaaj bi yëpp jaxasoo naa ak ñoom damaa jëlale mag ñi mais ba ci ndaw ñi gisuma ci ñoom lu ma leen di xeebe muy góor muy jigéen te bàyyi fu ne laay dugg fu ne laay gis fu ne laay dem ku ne laay waxal bu ñu bonoon ma xam ko muy góor muy jigéen gisuma ci kenn lu ma leen di xeebe nii ay nit ñu baax yal na yàlla defal leen jàmm seen sëriñ bi yàlla bàyyi leen ak moom ñi ci bëgg ay milliards yal na yàlla jox leen ko yàlla yàlla jox leen ko ndax dafa am solo li dëgg la toog fii naan baay yow rek li bëgg bëggal baay waaye bëggal milliard bëggal leneen ak leneen sa sëriñ boo toogee moom bu nekkee ci xaal sa bëgg-bëgg da koy wax bàyyi nga sama noonu la ni nga def noonu la bàyyi ñaanalal ñii ñu nekk ay milliardaire ñaanalal ñii ñu am xam-xam ñaanalal ñii ñu am tawféex ñaanal leen yàlla defal leen jàmm ak mën nga ko ndax ay jàmbur rek ngay ñaanal ñuy génn dem di faj aajo yeeg yu ne ñu dugg ci ziyaara yi ku ko xam dina la ñor gis ngeen ko fi sànq sànq gis ngeen fi gis ngeen ko fi mbaa xam nga ne Abdou Salam ziar bee ko jëlee Paris France la jóge démb 4 heures du matin la ak si aéroport nee na ma oustaz ma ne ko ah mu ne ma aw Sénégal soxla benn soxla indiwuma fi ziar bi rek moo ma indi pour ziar si bàyyi am bu jeexee ma ñibbi waaw léegi te paasu ci Paris daa bokk ak paas caare yow nga nekk taale bàyyi am nekk fii ziar bi jarul la yëndu fi kii bàyyee ay yitteem Paris ba nga xamante léegi nga yaakaar ni kooku bu ngeen jëfee ren di ngeen tolloo du ngeen yem. man mi ziar bi jaral ma jël sama xaalis dem jënd sama mbubb sañse ko ñëw pour su ma toogee rafetal baas bi yow ziar bi jaral la dara lu dul moo gisee gars yi yëkkati seen nga jàpp-jàpp lu boo génnee dem di ngistal bu ñu dundee ren ba déwén du ñu yem mbiru lislaam ni nga ci duggee loolu nga ci daqe taalibe yi ñëpp ay jàmbaar lañ waaye deel xool ñiy xitmaal sëriñ bi ba sëriñ bi gërëm leen fii ba déwén nga xool ak ñu dul xitma maa ngi jéggalu kàddu yi lu ci jub yàlla lu ci dëng ci ñun la wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Sidi Baraham Sidi Baraham Ñas Sidi Baraham Sidi Baraham gëm leen kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lañ tijil kese la doom si di baram